Serigne Balla Faly Dieng Serigne Balla Faly Dieng mi ngi feeñ jamono ci atum 1856 ci dëkk bu ñuy wax Njompi ci tund wu ñuy wax Ndogal ci suuf sii nag di Kajoor di doomu Serigne Masamba Soxna Dieng ak ku ñuy wax Soxna Xujja Aram Silla ñaari jëmm yi nag ñoo séq Serigne Balla Faly Dieng Serigne Balla Faly Dieng nag am na kenn nag ku mu bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ñu koy wax Serigne moor Dieng ibnu Soxna Xujja Aram Silla ibnu Serigne sàmba Soxna Dieng ak moom Serigne Balla Faly Dieng bi matee dal alxuraanul karim waajuram Serigne Masamba Soxna Dieng Dieng mi ngi ko yóbbu ci dëkk bu ñuy wax Taïba Silla Xay ci sëriñ Ahmadou Sill ci loxoy sëriñ Ahmadou Sill mii nag la sëriñ Balla Faali Dieng jànge alxuraanul karim ba mokkal alxuraanul karim ci loxoy sëriñ Ahmadou Sill mii itam ci la toog nag ba mokkal itam nag lii di xam-xam ginnaaw bi nag la del siwaan nag ci dëkk bii mu cosaanoo feeña fi jamono di njompi nekk itam nag ci ginnaaw waajuroom wa sëriñ Masamba Soxna Dieng di jàng ak di jàngale ci dëkk boobu nag di njompi njompi goog sax taxawaloon na fi kër ñu boole kook soxna suñuy wax soxna kanam kana mbooca sëriñ Balla Faali Dieng mook soxna kana Mbóoc amuñu nag ak njaboot ginnaaw bu sëriñ Touba Seexul Xaddim wootee nag lii di yoonu murit ci la sëriñ Balla Faali Jeng tas nag këram wuy si nag ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul taalibeem bii dib sëtam di Abibu Sàll mag ñuy wax nag càlla la sëriñ Balla Faali Jeng ak mbokkam nag ni mu tëddee moo xam ci wàllu waajuróom wu góor ak waajuróom wu jigéen ñu teewlu ko bismillahi tàllal ak kii baayam laay tàmbulee leeral njabootam Cheikh Balla Faale doomi Cheikh Masamba Masamba Soya doomi Balla maam ja mu la xare kàngam ja ak dammeel ja jàmbaar la woon joas kanon walal de masula tiit borom kanoo ki bool de Balla Faale mbéree di doomi Abdou laay soxna bey jàmbaar woon ju seddu laay soxna bey sëñ ma seet anta xumma mooy baay ba nday ja askano ci waa xumma seet anta xumma di doomi sayxu Abdalla Jëng ma biixoo du fasku Abdalla Jëng ñii na nga sañ ci ngaañax Daaru Jëng janatukat lii la wax nee na sërif la askano ca naari day may nit ñu baax ñi day ax yaari Abdalla Jëng méjjoo ko jur di doomi yaas may doomi ma waxale tellal ak ndeyam ja nga xam ne Balla Fally Dieng mooy waaja sooda xujj aram si laa di yaayam doomu sëriñ la woon ma jëmam anta daaro jigéen ju du puukaree ka faaru anta daaro yi doomi soxna yaasin jaxate jaane gosu ba aw askan yaasin jaxate mii di doomi soxna kurési la cadala gi rafet na lii moo di askaram ci wàllu baayam ak wàllu ndey ja bàll mi jar naa xam est-ce que sang bi di xam ngeen am ngaañ yi nuróowul ak ndéef ginnaaw juddoom bu sell bay kiimaanu rafet na lool teewul mu dal quraanu amaru sill tay baxee moo ko dalal am kaan lool mu siiw fa waa ahlul nogal foofee la jànge xam-xamab riwaaya dellu si Bamba jox ko ak wilaaya falawattoo xuraanu raw ak maasam sàkkantumaak bu def woon di kàngam way yooyu nag la Habibou Sall def nag ci sëriñ Balla Fally Dieng nag ci càllalaam sëriñ Balla Fally nag wéy des nag ci tundu ndogal woowu ba ci atum ci atum boobu nag la bàyyi koo tundu ndogal woowu ñëw daaru salaam ko baax ki sëriñ soriwul ginnaaw daaru salaam nag lañ sanc nag dëkk bu sell bii nag di Touba bi ñuy sanc nag dëkk bu sell bi nag di Touba soo delloon nag ci mbindum seex Moussa Ka mi ngi wax ne bisub keroog bi Sëriñ Touba Seexul Xadim gisee pàkk bu sell bii nag di Touba te mag ñi nag doon wut am màndarga ngir nag ñu xàmmee nag bërëb bu sell boobu Sëriñ Balla Faali Jëng nag moo fa njëkk a bay ngir nag ñu ràññee pàkk ba Touba googu itam nag ginnaaw bu ñu ko sancee ci dëkk bu sell bii itam nag di Touba itam nag la jote ngërëmam Sëriñ Touba Seexul Xadim itam yabalaat ko mu delluwaat nag ci tund wi di ndogal ginnaaw bu mu delloo nag ci dëkk boobu mu feeñe jamono nag di njompi waa tund wa nag doon reetaan nag doomu sëriñ Masamba soxna Jeng bi di sëriñ Balla Faali Jeng ci ñetti at nag yim def nag ci ginnaaw sëriñ Touba Seexul Xadiim te bi muy ñëw nag indaaliwul dara loola itam nag taxoon na nag waa dëkk ba nag di ko reetaan ba tax na itam nag sëriñ Balla Faali Jeng xatoon loolu itam nag ci tund woowu nag di ndogal soxna suñuy wax soxna jaxu jóob moo ko rayal ab gàtt defal ko nag ay teraanga ngir ko nag ñi ko doon reetaan mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di njompi ci yu mu am ci jaayante nag gum jaayante ku baax ki sëriñ Touba xaadim rasuul ba ni sëriñ Touba seexul xaadim nag demee ci géej gi ci atum 1895 bi sëriñ Touba seexul xaadim nag ñu ci géej gi ci atum 1902 la sëriñ Balla Faali Jëng nag bàyyikoo ci dëkk bi mu feeñe jamono nag di njompi ñëw nag ziyaare si ku baax ki sëriñ Touba xaadim rasuul yeesalaat nag ak njébbalam ku baax ki sëriñ Touba xaadim rasuul nag laaj na ko naka nag lay dunde nag ci dëkk boobu nag di njompi sëriñ Balla Faali Jëng nag wax na ko jafe-jafe ne nag waa tundu ndogal woowu nag ñu ngi ko koy tekk sëriñ Touba Seexul Xadim nag ñaanaloon na ko joxaat ko ndigal nag sëriñ Balla Faali Jeng jugee Daaru ko def si woon bi mu ñëwee nag sanc na nag dëkkam bu njëkk tuddee ko nag Daaru Jeng soo delloo nag ci marché nag bi mu defal sëriñ Balla Faali Jeng Cheikh Moussa Ka ma ngi ñuy wax itam nag lu baree bare baree baree bari ci ay jafe-jafe nag yu sëriñ Balla Faali Jeng nag doon dund ci tundu ndogal woowu rawatina nag ci dëkk boobu nag mu feeña jamono nag di njompi bi mu fa bàyyee nag waa dëkk ba ñëw nag daaru salaam nag jaayanteeg ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ba jot ngërëmam nag delluwaat nag ci dëkk boobu nag mu feeñ jamono nag di njompi waa dëkk ba nag xeeb guñ ko xeeboon ak bundu xataal nag buñ ko doon bundu xataal ci jaayante nag gum jaayanteeg ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ay at nag yu mu dund nag jafe-jafe yooyu ginnaaw nag bu sëriñ tubaa seexul xaadim nag ñibbisee ci géej gi ba sëriñ Balla Faale Jëng nag ñëw ziyaare si ko ci dëkk bii nag di daaru marnaan ci ngan nag gu sëriñ tubaa seexul xaadim nag amoon nag ci maam Cheikh na Ibrahima Fatim Balla Faali Jeng nag nett leen nag jafe-jafe yooyu nag muy dund nag ci tundu ndogal woowu sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim nag joxoon na ko ndigal nag mu sanc nag ab dëkkam nag bu njëkk tudde ko nag Daaru Jeng ca at mooma itim nag mag ñu baree baree baree baree bari nag ñu doon bundu xataal nag sëriñ Balla Faali Jeng ca at mooma itim nag lañ génn àdduna ba tax na nag Seex Musaa Ka nag mi ngi wax ne ca at moom itim nag la sëriñ Balla Faali Jeng tàmbalee dundaan nag gëneen dund nag gu bokkut ak nag gam doon dund histoire bu yaatoo yaatoo yaatu daal la ñu Seex Musaa Ka nag di nettali nu doon dunde nag ci tund woow nag di ndogal ñu teewlu ko atum wata sin la del si ndogal bi leen waar ña ngay mànkoo tanaa bu ko kenn faale mu gàddaay njompi sanc këram di sikkar ñu tudd ko romb leen ko bu leen ko faale mu tudd ko daaru bàllaay gémbe yaaram ñu dafa bëggee waaye bu leen ko laale mu naa maa doon bàlla ba fa balak dóom xale ka kàngam ba dàq demel di yaari ko di nga laaj daga bi ñu boole sërxel fa kàmb ga woon fa njëmi fa balla faali tanaa maa doon maam laay gémbe ba maamam tërif sangoom ya na balla faali sëriñ ñaxalay cosaanal wàllu maamam sëriñ ma ji ma na ante kilé cosaan te am jom te daggoon démb tey su ko ñëw bi maari ki day jàmbaar te boole ci fulla ak way te boole ci kën su maari rafet jëf saf xorom réy bari eskay mooy yow ka son li jamaali te yëb naa taar ba yëb naa tab ga dëhëran te yëb naa xay ga yëb naa balla faali walaay maam soona xujja aram am nga ndam tërlu nga bam ne wàcc nga balla faali walaay maam soona xujja ba yaa ko ràngoo ndogal day per digal ba di balla faali walaay maam xujja am nga xeej ji santal habibullahi balla bi si nawaali ndogal wa ñompi gooya jébbali Balla Faali ci moomale at la bambara seex boo géej atum katasin danaa ana Balla Faali mu dégg ko foofu addiitu yóbbu Tuubaa Pëdër mi naan la junneerong bi maali ci moomale at la gis njébbal ga tiifoo ndogal jaayante tuubal Balla Faali ci moomale at la mage di faat fawran mu doon njaboore dolli ci mbóore yaali ña di noonam di sappi kuy xaritam ñu rëñ ña di doom ñu sew ña di raam di baali natam bana mes mbégam na jarañ mu def buur magal ndaw ñëpp naa Cheikh Balla Faali sërëb Tuubaa nur fa këram ci baatin su naam say xeeñ ñi sikk su di sàlli ndogal di fa ñëw laaj ci ndigal balaa dem ndogal ne dogal ba dog na fa Balla Faali loolu la dogal ci réew ndogal balaa am ñu di soog Balla mbaa ñu ne Balla Faali sëriñ Tuubaa takkal ko midaayi baatin balaa ndaw sëy ñu ñaan si ko Balla Faali mu jaaxal seex ya jeexal suuf ya ci mbay balaa mag a jël yëgal si ko Balla Faali firi ko colom fekkoon nag ku réew ma xam foofee di aalim ne sàkki fukk ak juróom ya réy na ñu naa ko daali mas naa jox sëriñ tubaa fa tubaa sàkki fukk ak juróom ya mu dem di yaari xiif mu yafal ku rafle mu wodd ngay wéy ku leb mu lebal ku ñaan si mu may la maali loor màggal ku ñëw mu defar nga am kër ku sew mu réyal ku lott ne balla faali ku mas di labat fa ñoppi gum ak balaa jël mu may la jëral la ku weddi nga laaj di jaari di fat nis yin ya boole jirim ya nampal di way laayif ya yooyu leen balla leen maye kër fa njëbal foo gën a laaj sëriñ Dieng Balla Fari Abibullahi li la saa ci duniyaa ci réew ndogal ba réew ma ne nañ ko faale mu tërxiya gor ya tërbiya jaame dëkkoon defar way loofee loofoon filmi saali di dimbale musukat ya di sàkk ay kër di gas ay teen di gor ay tool ni aari waa fi sawar a ci na ca kaw te tàng ca biir ni aw xal lihaalin suu jalaalin suu jamaari dër ba ne këm nee ba ne nemm niw der li baarin aw bi baarin aw bi baarin sujaaun min sujaain min ba tax na nag ñu baree baree baree bari jaayante nañu ak sëriñ Balla Faali Jeng ci tund woowu nag di ndogal ci suuf soosu nag di njompi ci dëkk boobu mu sanc nag ci 1903 ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul di Daaru Jeng ñu mën a ràññee nag ci góor yàlla yi njëkk a ànd ak sëriñ Balla Faali Jeng ku ñuy wax sëriñ Aliou Ñang sëriñ Maxtaar Silla sëriñ Alsey Ñang Baay Seexu Jeng Baay Galaay Sàll Baay Moodu Njaay Sëy sëriñ Bira Sàll ak jaayante sëriñ Balla Faali Jeng sanc na ay daaray daaray daara ñu mën a ràññee nag ci daara yim taxawal daara jum amoon nag ci dëkk bu ñuy wax ba daara jum amoon nag colom daara jum amoon nag ci dëkk bu ñuy wax ngin gi néew daara jum amoon nag ci dëkk bu ñuy wax mbaabu daara jum amoon nag ci dëkk bu ñuy wax Touré Mbond ak daara jum amoon nag ci dëkk bu ñuy wax Pof ak yeneen nag yeneen i daara nag yum taxawaloon moom sëriñ Balla Faali Jeng am na ay góor yàlla nag yu nekkoon Cissé am na kuñ doon wax sëriñ Mor Dia am na kuñ doon wax sëriñ Modou Seck maam Njuga Sàll itam nag amoon na ci ak ku ñuy wax sëriñ Malick Khoudia sëriñ Cheikh Ndiaye Soxna Faye ak kuñ doon wax sëriñ Jéere Dieng sëriñ Abdou Khari Sarr sëriñ Cheikh Ñang sëriñ Touba Dieng sëriñ Massamba Khari Sall sëriñ Abdoulahi Ndiaye sëriñ Modou Dieng Soxna Faye ak sëriñ Modou Sall ak ñeneen ak ñeneen nag ci daara ji sëriñ Balla Faali Dieng itam nag daana yónni ay taalibeem itam nag ñuy dem ci gànnaar itam nag dafa yit sëriñ Touba Seexul Xadim ay addiya ci taalibe yi nga xam ne ni daanañ sëriñ Ibra Ndiadde Dieng Baye Mor Sall ak sëriñ Malick Bey ñii moom sëriñ Balla Faali Dieng daana leen yabal ci gànnaar nag ngir ñuy joxe ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim ay addiya gànnaar googu itam nag la ko sëriñ Touba Seexul Xadim joxe woon xasida guñ tudde maraaxib joxoon ko nag taalibeem bi sëriñ Balla Faali Dieng yabaloon gànnaar ngir mu yit ku baax ki sëriñ Touba addiya di sëriñ Ibra Ndiadde Dieng ak nag liñ tudde ak sijaada te soo demee na nga wax sëriñ Balla Faali Dieng na wax nag képp ku ko topp nag ngir man na ko mokkal loolu moo waral nag maraaxib nag waa kër sëriñ Balla Faali Faly Dieng nag fonk ko lool ndigal la nag lu sëriñ Touba Seexul Xaddim joxoon sëriñ Balla Faly Dieng yu takk yooyu nag mu daa yóbbu nag ci gànnaar tax na nag soo delloo nag ci mbindum sëriñ Moussa Ka mag ñiy wax nag farluk sëriñ Balla Faly Dieng ci joxe addiya ak jàmbaar nag gum jàmbaare woon nag ci bi sëriñ Touba Seexul Xaddim nag nekkee gànnaar ak ndigal nag lu ko sëriñ Touba Seexul Xaddim joxoon mu bënnal nag Maam Moor Jaara ab teen nag ci dëkk bi nag di Mbàkke xewar ginnaaw gànnaar itam nag njaareem ba séef boo xam ne itam nag sëriñ Balla Faly Dieng itam nag amoon na ko njaareem ci taxawu nag gum daa taxawu seexi sëriñ tubaa seexul xadiim yi ci dundalitim nag gum leen daa dundal ci dëkk boobu nag di njaareem ñu teewlu ko moo la fi seexi bal defoon ca baawan di waxtu seen ci na waali ba bamba demee ilaa gànnaar da daa dem lolaa seex bala paati maar rijaali juróomi giléem la boole sufe jox daam ñaandaki loo tànnaki mbaam wa maali la daa sar saara daana siyaare dëhëran ñu seex ma dumbe duutuma denc maali junni nguur deeki saako ceeb la daa suuf diir seex bamba foofee lañ di gaale moo xujjee turee ki muxtaar jaali kere la ko bamba booleeg maam borom saam mu bënn ab teen fa mbàkke xewar bi aali te moo njëkk a bay fa dugg fa bay ci sunna ba ba mbay dem alal bala yóbbu waale te moo male at la bal la dajeeg sëriñ daam di laaj ay fas ko doom bi aali sëriñ ab doondi moo di donom ci baatin nga ku ko gor bu seqee wan la maali ndogal am ngeen xarifati bopp amul kem bu ngeen béeroo na ngeen booloo ni waali sëriñ tuubaale bàyyi fi woon ci baatin garab lañu doom ya ñooy meññet lu laale ku jëmbat mango doom baa tax nga suuxat ne xam naa ne kaani doom baa taali ne baay di doom te dooma di bàyyi ci baatin wat di joggi kuulul kon ñu jaali ma dellu fa wax la googa defoon fa njurbel atum la ko sin la bamba ne balle faali ba bamba ñëwee ilaa jurbel la jóg ñëw ne duduma dellu def njiital rijaal yi keroog la fa sànci gàddu na seex ay at fase waa njompi roy leen balle faali ne seex modu ndumbe waajuram mooy di isa Souleymane Diop ne def ni ki balle faali moor njurbel di leen may njël dawaa man di a daal min di jaari sëñ Maodo Ndumbe Mbàkke ne ahlu badrin dinaa leen woo murid dafa maaj bi aali sëriñ bàllaale sëriñ Maodo Ndumbe mahlan murid dana maaj moo Cheikh Ibra Faari sëriñ sadi bañ murid di xas fa jurbel sëriñ Tuubaa waa ju ma gëm na laare sëriñ bàllaane jébbali naa sëriñ Jeng mu ànd toppoon Balla Faali tere la ko Bàmba woo ne ko muru fas bëri jihaari bakkan fegal dama tey xitaali sëriñ bàllaane man la fi def ci duniyaa du maa tabax te Bàmba di soxla maali keroog ay junni lañ ko andil fa njurbel mu jox Cheikh Bàmba bàjj ba soo ya newoon fa njubbel nu ngeen dajaloo tabax fa jumaa bi aali sëriñ Isaa ko jëwrinu moo di saadix wa Seex Amadu Ndumbe dolle ca Balla Faali du mooy ndigalal sëriñ Tuubaa la yaalan doo xam ne ñun néeg ba faw xana bayti maali keroog ba gouverneur baaba ñëwee fa njubbel dala ca parang ba daal di ko yóbbuwaale sëriñ Ballaane Seex Amadu Ndumbe nañ dem bagg Ndakaaru mbaate Ndar mbaanu laale te la ñu dem Ndakaaru ji seeg borom Ndar mu delloo leen parang ba lu ñëw di yaali keroog ba jumaa ji àggee Seex ya booloo dalaa Seex Bamba sant fa Balla Faali ngërëm ñu dénk caabi a Balla Fally ku nekk di buur di daanu te naa torox naa di rëcc te naa bëggoon naay Balla moo keroog ma dem ba moomam fa Njurbel kër la ko dénk caabi a dem di yaari te moom sasin bambal daal ne mes ba Tuubaa dafay di yëngu lamb ja toj fa aali ku nekk di jooy di xaaju te naa nu may def mu jëbal rooga am di maana yaali mu dalu saxar ci yor safar di màggal bis ni Seex Ahmada Bamba waali fa bug coggal di dàq di yóbbu Tuubaa wasaakoy ceeb wa maali saxal na ko fukki at sëriñ Touba Seexul Xaddim moom sëriñ Balla Faali Jeng ba tax na itam nag lu takkoo takkoo takkoo takku moom sëriñ Balla Faali Jeng nag séq na ko ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul bi sëriñ Touba Seexul Xaddim demee ci dëkk bii nag di gànnaar sëriñ Balla Faali Jeng nag daana ko fekk itam nag di fa ziyaare di ko yit nag ay addiya ci marché bi ko sëriñ Moussa Ka defal mag ñiy wax nag lu takkoo takkoo takku nag ci ay addiya yu sëriñ Balla Faali nag daa sëf nag ci ay giléem daa ko yit ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim a addiyee ya ba tey ci digganteem ak ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul sëriñ tubaa seexul xaadim nag na ndigal sëriñ Balla Faali Jeng mu bënnal ab teen nag maam Moor Jaara magi makka ci dëkk bii nag maam nekkoon nag di Mbàkke Bawal ci quartier bii nag mu féete woon nag di Mbàkke Xewar ba tey nag ci diggante sëriñ Balla Faali Jeng ak ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul gànnaar googu itam nag sëriñ tubaa seexul xaadim joxoon na fa sëriñ Balla Faali Jeng ak xasida nag guñ tudde jaalibatul maraaxib di ko wax ne nag dafa bëggoon na képp nag ku yaakaar sëriñ Balla moom ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul na sëriñ Balla Faali Jeng nag fexe nag ba mokkal xasida gi gànnaar googu itam nag ba tey sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim joxoon na fa sëriñ Balla Faali Jeng ak sijaada ak jullikaay ba nëgën itam nag sijaada ga mi ngi ci lenn itam nag ci njabootu sëriñ Balla Faali Jeng gi ba tey ci diggante sëriñ Balla Faali Jeng ak ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ginnaaw bu sëriñ Tuubaa Seexul Xaadim jógee gànnaar nag dem ca yéen jolofa sëriñ Balla Faali Jeng itam nag daana ko fekk ca yéen jolofa ba tax na ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul joxoon na fa nag ak xasida xasida nag sëriñ Balla Faali Jeng mu tudd nag wakkaan xaqan wakkaan xaqan googu itam nag sëriñ Balla Faali Jeng ci nekk na itam nag daana def képp koo xam ne nii mokkal nga ko soo ñëwee nag mu xotti la am mbubb neexal la sëriñ Balla Faali Jeng itam nag ca yéen jolof googu daana fa yónni nag ay ndaw ñu fa daa fekki ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ku ñuy wax Maam Moor Jeng ak ku ñuy wax sëriñ Maxtaar Silla ñaari jëmm yi nag la daa yónni nag ca yéen jolof fa ñu yóbbu ay addiyaam nag ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ba tey diggante ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ak sëriñ Balla Faali Bakary Dieng bi sëriñ Touba Seexul Xaddim jógee ca yéen Jolof ñëw itam nag ci dëkk bu sell bi nag di njaareem sëriñ Balla Faali Dieng bokkoon na itam nag ci ñi sëriñ Touba Seexul Xaddim dëloon njaareem ba wutaloon nag fa kër goo xam ne ni soriwul dara kër ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul mu tolloog nag fi ñuy jullee néew yi ba tax na garabu xay googu fi nekk sëriñ Balla Faali Dieng nag moo ko fi jëmbatoon wala moo ko fi jiwoon ci bim dëkkee foofu ginnaaw bi itam nag la tuxu ci wetu kër soxna Faati Dia moom ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ci njaareem ca kër googu sax la génnee àdduna ci atum 1940 ba tey ci diggante ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul ak sëriñ Balla Faali Jeng nag la dénkoon lépp loo xam ne nii nag aju na nag ci xaalis bi mu denc ko ba tey ci diggante sëriñ Balla Faali Jeng ak ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul ci njaareem googu bi fi sëriñ Touba Seexul Xaadim di doog a ñëw seex su bare itam fekk si ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul ci njaareem sëriñ Balla Faali Jeng itam moo leen daa dundal ci aw ñaqam ndax sëriñ Musaa Ka nag mi ngi koy dëggal nag bi mu defal sëriñ Balla Faali Jeng ba tey ci diggante sëriñ Balla Faali Jeng ak ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul njaareem googu bi sëriñ Touba Seexul Xaadim joxee ndigal mag ñi ngir ñu taxawal jumaay njaareem ji lii di gouverneur nag bu Ndakaaru ñëwoon na njaareem jël si woon nag plan jumaay njaareem ji sëriñ Balla Faali Jeng moo waxtaan xaritam ba sëriñ Mandumbe Mbàkke di ko xamal ne nañ dem Ndakaaru nag wala Ndar Géeca ngir jëliwaat plan bi Seexul Xaadim nag mën a eggale nag li mu bëgg nag ba tax na itam nag sëriñ Balla Faali Jeng mook sëriñ Mandumbe Mbàkke ñoo ndakaaru nangu ji plan bi ci gouverneur bi ba tey ci diggante sëriñ Balla Faali Jëng ak ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul bi sëriñ Touba Seexul Xaadim nag wootee màggaluk Touba gi ci atum 1922 sëriñ Balla Faali Jëng nag la ko njëkk a wax nag ngir mu wax ko nag mbooleem taalibe yi ba tax na itam nag màggal googu sëriñ Balla Faali Jëng nag màggal na ko lu toll fukki at ak juróom nag laataa muy génn àdduna ci ndigalul ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul sëriñ Balla Faali Jëng daana ci rey ay xar xar mi mu ci njëkk a rey sëriñ Mouhamadou Jigal bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul nekkoon xaritu sëriñ bàlla faali jëng la tudde woon ma ba tey ci ndigalul sëriñ tubaa seexul xadim ak sëriñ bàlla faali jëng ginnaaw bu jumaay njaareem ji eggee sëriñ tubaa seexul xadim sëriñ bàlla faali jëng itam nag la joxoon caabi jumaay njaareem ji ngir nag muy wattu jumaa ji sëriñ bàlla faali jëng taalibeem buñ doon wax nag ma demba jëng la joxoon caabi jumaay njaareem ji ngir nag muy sàmm nag ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ba tey ci diggante sëriñ bàlla faali jëng ak ku ci atum 1914 bi tubaab bi nag di laaj ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddiim ay soldaar ngir nag ñu dem nag ci guerre bi sëriñ Balla Faali Jeng nag joxe woon na lu tollu juróom benn doomu aadama juróom benn doomu aadama yi nag ñu mën cee ràññee kuñ doon wax sëriñ Jeng mënoon cee ràññee kuñ doon wax sëriñ Mbay Silla mënoon cee ràññee kuñ doon wax sëriñ Mamor Sàll mënoon cee ràññee ku ñuy wax Albaaba Sëy mënoon cee ràññee kuñ doon wax Malik Bey mënoon cee ràññee kuñ doon wax Mbay Sàll sëriñ Balla Faali Jeng nag moo njëkk joxe nag doomu aadama mag ñi nag doog a joxe également soo delloo nag ci marché bii ko sëriñ Moussa Ka defal ma ngi ko cay leeral ba tey ci diggante sëriñ Balla Faali Jeng ak ko baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ci bi ñuy tabax jumaay njaareem ji sëriñ Balla Faali Jeng mook sëriñ Mandumbe Mbàkke kenn ku ne nag ci addiye yi ñu doon laaj mag ñi daawoo bind nag saw tur sëriñ Mandumbe Mbàkke nag Fofana nag la daa bind sëriñ Balla Faali ndongal tarbiya nag la daa bind ba tax na ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul mas naa laaj mag ñi kan mooy ndongal bi nag la ko sëriñ Balla Faali mii la sëriñ tubaa seexul xadim di ko wax ne ndongal taribe ya diw tur yow habibullaahi nga tudd ba tey nag ci jëfi sëriñ Balla Faali Jeng fii nag ñuy waajale néew yi nag ci njaareem sëriñ Balla Faali Jeng nag moo ko defar ba tey ci diggante sëriñ Balla Faali Jeng ak ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ci njaareem googu nag am na bis kenn ci mag ñi nag ñëwoon ci ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul di ko wax ne nag damaa bëggoon nag nga defar ma seexul xa nag di ko xamal ne nag defar day laaj taqoo te jamono jii nag amatuma jotug taqoo kenn nag ba di ko defar sëriñ ba mën a defaree ci loolu nag la sax ba ni sëriñ Touba Xaadim Rasuul génnee àdduna ci atum mu jël léppam nag jébbal Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke mi nekkoon nag xalifa Xaadim Rasuul farlu googu nag mu farlu woon ci ginnaaw ko baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul tax na itam nag mag ñi fonkoon nañ nag jëmm jooju nag di sëriñ Balla Faali Jeng ba tax na itam nag mag ñu baree baree baree bare amoon naag ñoom itam nag ak relation ñu mën caa 1927 Serigne Balla Faali Jang itam nag bokkoon na itam nag ci mag ñi njëkk a jaayanteeg Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke di ko xoole Xaadim Rasuul taxoon na Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke demoon na Njompi wala Daaru Jeng ngir gan a jee itam nag Serigne Balla Faali Jeng ngan nga itam nag ngan gu riche riche riche la gu Serigne Balla Faali Jeng nag ganale woon Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke Serigne Moussa mag ñuy nettali nag ngan nga di ñu wax na itam nag Serigne Balla Faali Jeng lépp loo xam ne nii nag war na itam nag ci doomu Xaadim Rasuul bi defoon na gane ji woon sëriñ Balla Faali Jeng te sëriñ Moussa Ka nag bind ngan nga sëriñ Balla Faale baax magum yoonal naa ko way magum yoon du yàqub dox te yóbbal na Moustapha ma santal sëriñ Touba sëriñ Balla Faali Jeng du moo gëm sëriñ Touba te gëm am ji Moustapha dëggal gëm dëggal moo tax ba bur yàlla far dogal moom waa ndogal moom njëmpi moom daaru Moustapha nee naa waa ndogal seen waa ji sa na dub sagan fulaak fayda ko way la làmboon ni Moustapha mbësee fa la gis fi jëf andi lay def tey fajal aaji aw ganam bagaane yay yar takk yay rooti ñooy feesoo Moustapha talaa biir yi ak borom mol ya lay boole yewandoo talaa ngaam ji ak berndeem ba jommal na Moustapha sëriñ Balla Faalee jox sëriñ andi tiitiram ni leen wóor ne boobee gembe yaaram la Moustapha tabaaraka rabbul arsi fii naa bi jaayi samay barke Abdoulahi dooma bi Moustapha topp googu mu toppoon ci ginnaaw Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke tax na itam nag tudde na doom Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ndax ñetteelu xalifaam bii fi nekk Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke nag ak Faadal Mbacke diggante itim nag bu jaxasoo tudde woon na doom Cheikh Mamadou Faadal Mbacke Serigne Abdoulahi Mbacke borom dër bi ku jaxasoo woon nag Serigne Balla Faali Jeng la Serigne Balla Faali Jeng itim nag tudde na ko doom Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke Serigne Balla Faali Jeng itim nag tudde na ko doom Cheikh Mourtada Mbacke ibnu Serigne Touba Xaadim Rasul Serigne Balla Faali Jeng itim nag tudde na ko doom soxna Faati Madu Man Diop di waajuru Cheikh Mamadou Bachir Mbacke Serigne Balla Faali Jeng tudde na ko doom noonu mu meloon nag njabootu ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasul ni la meloon nag ak mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul sëriñ Moor Kumba Kan bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul tudde na sëriñ Balla Faali Jeng doom ndax maam Balla Kan mi ngi fi woon te sëriñ Moor Kumba Kan sëriñ Balla Faali Jeng nag la ko tuddee sëriñ Xamar Sàmb bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ku jaxasoo woon nag sëriñ Balla Faali Jeng la ba tax na itam nag tudde na sëriñ Balla Faali Jeng doom sëriñ Mouhamadou Diop Dagana ku jaxasoo woon nag sëriñ Balla Faali Jeng la sëriñ Balla Faali Jeng nag ku jaxasoo woon nag sëriñ Haajara Mbàkke la bi muy jot ngërëm ci atum 1888 ci dëkk bu sell bii nag di Touba ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul sëriñ Haajara Mbàkke nag la yónni woon ngir mu woole li ko sëriñ Balla Faali Jeng loola itam nag taxoon na sëriñ Balla Faali Jeng nag ku fonkoon sëriñ Haajara Mbàkke la ba tey ci jaxasoog sëriñ Balla Faali Jeng ñu man cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Maxujja Ture mook sëriñ Maxtaar Mbay Kayre ñoom ñett nag ñoo bokkoon nag yenn daara nag juñ muritoo ba tax na itam nag Cheikh Moussa Ka mi ngi koy leeral ci marché bi mu defal sëriñ Balla Faali Jeng sëriñ Abdourahmane Lo sëriñ Balla Faali Jëng tudde na ko doom muy sëriñ Abdou Jëng Balla ndax soo sukkandikoo ci marché bi sëriñ Moussa Ka defal sëriñ Balla Faali Jëng dafa am at moo xam ne ni sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo da doon laaj ay addiyey fas addiye yooyu nag ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag la ko doon laaje ginnaaw bu mu ko laajee sëriñ Balla Faali Jëng ca at moom itam nag ci la sëriñ Abdou Jëng Balla Faali nag feeñ jamono sëriñ Balla Faali Jëng fayee ko nag sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo sëriñ Moodu Jigal bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax suul ku jaxasoo woon ak sëriñ Balla Faali Jeng la ba tax na mook sëriñ Balla Faali Jeng meloon nañ melakaan woo xam ne nii comme doomu nijaay ak doomu bàjjan sëriñ Masamba Kandi Bousso gis naa ci lettre bu mu bind sëriñ Xalamin Ñang di ko xamal nag maa ngi fii nag ci kër sëriñ Balla Faali Jeng ci ab ziyaar nag bu ma fi am waaye bis bu ma fi bàyyikoo nag dinaa ñëw kër àlla googu nag seet si la nag sëriñ Masamba Kandi Bousso ku jaxasoo woon ak sëriñ Balla Faali Jeng la sëriñ Madiba Silla ku jaxasoo woon ak sëriñ Balla Faali la ndax ñaxal googu sëriñ Madiba Silla cosaan cosaanoo sëriñ Balla Faali Jëng foofu mooy kër maamam sëriñ Mbàkke Buso ku jaxasoo woon nag sëriñ Balla Faali la ba tax na bi sëriñ Balla Faali Jëng génnee àdduna ci atum 1940 moom la Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke jox ndigal na ngir mu taxawu sëriñ Balla Faali ku jaxasoo woon nag sëriñ Rijaal Sekk la moom sëriñ Balla Faali Jëng ndax ñoom ñaar nag ñoo bokk seen tundu ndogal woowu loola itam nag taxoon na sëriñ Balla Faali Jëng xoboon na soxna suñuy wax soxna Silla Sàll jébbaloon ko sëriñ Rijaal Sekk nag ngir mu dëkkoo ko ginnaaw bu sëriñ Rijaal Sekk nag am na ci nag bant bu ñuy wax soxna bu sa sekk soxna bu sa sekk moom nag bi matee dem kër lañ ko jébbal nag sëriñ du Jeng mu nekk nag ñetteelu xalifa sëriñ Balla Faali Jeng ak ñeneen nag ci mag ñoo xam ne nii nag sëriñ Balla Faali Jeng itam nag amoon naa ak ñoom nag ak jaxasoo soxna yim àndaloon nag doon liggéeyal suñu boroom ci wàllu kër ñu mën cee ràññe ku ñuy wax soxna kanambooca di soxna nag sum njëkk a dëkkool ñu mën cee ràññeeku ñuy wax sox Aysatu Sëy ak ku ñuy wax soxna faa coro xumma soxna faa coro xumma mii nag moom meññ nag taawub sëriñ Balla Faali Jeng di kam faye woon ku baax ki sëriñ Touba xaadim Rasoul di sëriñ Cheikh Ahmadou Dieng ak kaneen itam nag kum fayewaatoon xaadim Rasoul di sëriñ Cheikh Seng Dieng dëkkoo woon nag soxna suñuy wax soxna Fa Binta Sall dëkkoo woon nag soxna suñuy wax soxna Faati Njaay Ndangur soxna Faati Njaay Ndangur mii sax moom meññ sëriñ Abdou Dieng Balla Faali dikk njëkk a wuutu nag sëriñ Balla Faali Dieng dëkkoo woon nag soxna suñuy wax soxna Seynabu Sëy dëkkoo woon nag soxna suñuy wax soxna Assu Njaay dëkkoo woon nag soxna suñuy wax soxna Faati Dieng dëkkoo woon nag soxna suñuy wax soxna Assu Dieng dëkkoo woon nag soxna suñuy wax soxna Aminta Gay Guèye dëkkoo woon nag soxna suñuy wax soxna Mariam Seck dëkkoo woon nag soxna suñuy wax soxna Faati Jaxate soxna yi nag bokk nañ ci soxna yi sëriñ Balla Faali Jëng dëkkoo woon mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di Daaru Jëng di yar di jàng ak di jàngale di dundal nag ndonal ko baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ba nim génnee àdduna nag ci atum 1940 ci dëkk bi mu nekkoon nag Xaadim Rasuul nag di njaareem ci xilaaf ak Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ginnaaw buñ ko jëlee njaareem nag lañ ko indi nag ci dëkk bu sell bi nag di Tuubaa ngir jébbal ko fi nag ba boroomam sëriñ Balla Faali Jeng nag mi ngi génn àdduna bisub gaawu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru tamxarit ci atum 1359 ci gàddaay gi gaawu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru tamxarit ci atum 1359 ci gàddaay gi dëppoog muy samedi 9 mars 1940 samedi 9 mars 1940 la sëriñ Mouhamadou Balla Faali Jeng nag génn àdduna ci njaareem Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke moo wax sëriñ Mbacke Bousso mu jullee nag sëriñ Mouhamadou Balla Faali Jeng ginnaaw bu sëriñ Mbacke Bousso nag jullee liggéeyal sëriñ Mouhamadou Balla Faali Jëng ba noppi lañ ko jébbal boroomam nag ci armeer yu mag yi ginnaaw bu mu génnee àdduna nag ci atu 1940 sëtam bii nag di aw turandoom di Abibu Sàll defal na ko nag am marsiya bu yaatoo yaatoo yaatu di ñu wax nag jikkoy sëriñ Mouhamadou Balla Faali Jëng melokaanu sëriñ Mouhamadou Balla Faali Jëng lu yaatoo yaatoo yaatu daal la sëriñ Abibu Sàll di wax ci nekkiinu nag sëriñ Balla Faali Jëng nag ñu teewlu ko wafaatu seyxi seyxi Balla Faali demam nga lay mu di ko jaale bàjjuba ak réem nga lay nett leeti weeru asura jolta si bàjjuba laa miira a yaama tan si weeru muharram mooy at mu tisma seexi balla faari dem ñaari wati fan wéteg juróom ñeneen lalaa ko ceekk rajo booba jant suuf jël na waaju réew fit jàmbaare tam fasaa ku fi deete waare suuf jël mbar kaamil jaab walliyu satab rasulullahi may nabiyu seex ba muy gis yàlla fekk seexi bamba suuf jël na waaju mën a muñ te réew fit mëne su ko fooxa mëne su ko sut seex balla faari jëng borom defar rafet bindab yaram nii la meloon ëmp na lool te am jom gémmam ndogal ba dem na suufi jooyoo habibullahi seexi bàlla sooyoo asamaani jooy nañ habibullahi foore ndogal ja làq doona laay mbooleem sëriñ su mag sa nekkoon Tuuba ak njurbëli ñépp ñoon ci robba sëriñ Malaamin Jóob ma sancoon dagana alhamdulillahi ala kamaali taalif seexi seexi bàlla faali ku dégg way wii rek nag ma ñaanal ma nekk am murit bu wër nag te dëggal te yàlla buur bi jàppale njabootam ñu sax fi loolu ba mujj doon mbootam amiin tam taax nu ñu am ci barkeem ci leerame ne jolli di yokk abada ɗum peeru ajjana onaaka xaalida summa salatullahi wassalaamu ala rasulillah di fekk muy jaamu waali wa sahbil kirami summa ala qadimil hummaami ginnaaw sëriñ Habibu Sàll nag Cheikh Moussa Ka bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ko baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul defal na nag sëriñ Balla Faali Jeng itam nag am marsiya ci marsiya nag bi sëriñ Moussa Ka defal sëriñ Balla Faali Jeng mi ngi wax nag gaaw bi nga xam ne nii moom la ñu sëriñ Balla Faali Jeng nag dëddu ak weer wi itam nag wi ñu dëddu nag di tam xarita ak miraas nag gu sëriñ Balla Dieng nag miraas boppam ba pare nag doogu génn àdduna farlu itim nag gu sëriñ Balla Fally Dieng farlu woon ak itim nag ñàkk nag gu ko yoonu murit ñàkk ki ko a wuuti itim nag di sëriñ Abdou Dieng Balla Fally sëriñ Moussa Ka itim nag ma ngi ko koy ñaanal di ko wax na itim nag doonn sëriñ Balla Fally Dieng nag yombul waaye nag mi ngi koy ñaanal nag ci darajay waa Mbàkke ak Mbusoobe ak waa Kànka suñ boroom nag wooye nag sëriñ Abdou Dieng Balla Fally nag a faali nga sut xari maam te jooy seex balla faali kanoon uqal bu kaaw a jooyloo ala saadaatina jooy balla faali keroog asamaani jooy nañu ko wal arabi te jant ak weer jooy nañu balla faali jumaa jafa taaxe jurbel jooni i képp habibullahi gembe ba balla faali samay rongooñ feroon danaa fi jooyaat habibullahi gembe ba balla faali ku jooy seex mu a xarit ba xaali na dellu xalam te mar seex balla faali soo duna doon kër di fi sax dawaaman rasulullahi màkka ja duñ ko jaare ka yóbbu rasulu yóbbu xadimu tuubaa dogal na lu rëy ndogal ana balla faali ma jooy dajale ndogal nga njëkk lax ba Touba di toppi ndigal te adduna daa ko faale Habibullahi moo njëkk a dëddu dunya dëddu soxnaam ba si mësul na faale te boobale soxna Karam Mbooj mat na lay laa gumaay ba rafet la dàq na ay rijaali keer la ko Bàmba jës bu mu dem ci baatin munaasamtu nafsi lil muaali mu sax te ndigal la tërbiyoo fa Touba maam fay at di wér ku fa ñëw di yaali walaay doon nañ ci moom koppar wanaasu jëmmam bam laata dem la miraas bi aali demam nga ca amatan alquran ba àggal la ko gën a mes ilaa tuuba bi ali murid ya di rës rësee que reñaani sàkket malaaka ya teeru ruuga binnawaali sëriñ tuuba xaroo ko riddan fa tuuba waramatuhu wa lamp ba ibra faari fóorëy jurbel ya daal di ko yóbbu tuuba mu séeru ngërëm la tàbbi këram di yaari kënuy ba sax soqi mu jot ci àqam keroog la mu bén ma mat bilaa ji daari li ngay wax doy na yow Moussa taxawlul ba day wax goo la yella ca balla faari mu ne ta wax la baal defoon ci duniyaa ma jéem a taxawlu ñaanal abdu maali ci turwa maaliku na nga ko moomal lu fawqa la bàyyi ba moomoon ci rijaali ci mbóoti salaamu yàlla na booba dollee musal si abdu dolle ko ay rijaali musal magi góor yii toppoon ci baayam misal ibraki rakam teg ci aar yi ci barkeb Cheikh Bamba laa ko ñaanal mu yokk jooy ba barkeb Ibra Faali ba barkeb Mbàkke ak barkeb Mbusoobe ba barkeb Kanga Samba yu bëgg bilaari la su baayam wa maamam yépp aw fan te doon la woon ca Siidee Balla Faali ci la saa xooki téyu saabi wa aalin xeera aalin xeera aali li fee ñi ngi jooy di merci gaaya baaxoon nee la gërëm sëriñ baak balla faali tabara rakkam ya riddan wa rahma tabara ci ay dëkkaale max yaari ay xalifaam nag ñi la tëdde moom sëriñ balla faali jeng li ko dale ci le mars 1940 ba le sëriñ ndaam abdourahman di sëriñ habdu jeng balla faali nag moo ko njëkk a wuutu ñaareelu xalifa sëriñ balla faali jeng li ko dale nag ci le 19 octobre 1988 ba le 29 mai 2012 sëriñ Abdou Karim Dieng Balla Faali nag moo nekkoon ñaareelu xalifaam ñetteelu xalifa sëriñ Balla Faali Dieng li ko dale 29 mai 2012 ba nëgëni sëriñ Modou Dieng dikkim faye Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke moo toog nag ab toogaayam ba nëgëni di ñetteelu xalifa sëriñ Balla Faali Dieng ñu koy ñaanal nag suñu boroom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu waajuram bii nag di sëriñ Balla Faali Dieng ak mbooleem nag ñu mu séqal nag sëriñ na bis nag buñ koy fàttaliku ci diggante ak màggal muy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent nag ci weeru tamxarit di bis nag bu mu noon àdduna bis boobu itam nag lañ koy amal nag ci dëkk bi mu sancoon di daaru jeng ñuy ñaan ca jàmbaari sëriñ Touba seexul xadim ba sëriñ faa li Jeng yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram nag te taas ñu ci barkeem lii di jafe-jafey réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci darajay habibullahi amin e habibullahi amin e habibullahi amin e habibullahi amin